زمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن comme ni ko ñëpp yëgee moom mu am ak OFTM ak social bi nga xamante ne moom moom lay dundee moom lay dunde ba ñëpp teg ci seen bët mu am yëg-yëg ne day ñëw jàppale sa waa Ngor parce que gis na lii nga xamante ne mooy métit ak naqar dal leen mu ñëw pour jàppale se leen pour ñëw masawu leen te lépp nag jóge si suñu xarit suñu dëkkandoo Mouhamed Niass moom mi nga xamante ne moom mosota des ginnaaw si problème mu Ngor fa Ngor amee problème toujours moom dañ ko see gis mu ñëw def ak participation la mu si man ak la mu si mënul yëpp dina ko def pour Ngor am jàmm parce que wa moo looloo ko war nag parce que wangoor la ba dëkk bi tàkkee ñëpp la ñëpp laa taal kon nag toll nañ faa xamante ne problème am na ba kilifa yi jot nañoo dem sax gisi ji ak président Macky Sall ba jox nañu ay promesse yoo xamante ne tegal nañ ñu ko rawatina si parking bi nga xamante ne moo taxoon na moo indi problème bi dañ ne sax xaaj dañ koy xaaj si digg bi jox euh, gendarme yi moitié ñun ñu jël moitié mais satisfaire ñu loolu satisfairewul waa Ngor dëgg la nag bi ñu respecté ñun suñu kilifa dem nañ ba waxtaan ak Macky Sall respecté nañ leen waaye taxul tamit ñun ñu am li nga xamante ne moom lañ bëgg bañ sañoon ñu bàyyi tam bàyyi ñox ñu parking te lii nga xamante ne nag moo fi nekk dama gis ne ne nëgë si waroon na ñoo jàppale ñun waa mais yëf yi dañ si tumuranke ba kenn jàppalewuñu kenn kenn gisuñu kenn kon bañ mën a déggee ne ku mën ni doyen euh, DG Habib Niang ñëw pour ñëw taxawuñu loolu ñun dañ kaa sant yàlla bañ si amoon fukki moroom ak juróom-ñaar fexe ba ñun ñu satisfaire ñu dinañu amal njariñ parce que lii lii raam kenn xamul fa mu jëm parce que dem nañ ba nit dee si te mënoon naa ñàkka diggante koor ga ba léegi problème baa ngi fi ba léegi problème baa ngi fi mais saafarawul tam nag bëgg bañ sañoon mu saafaraw pour jàmm am parce que jàmm si la lépp xaj kon nag ñun ñu ngee kontaan bu baax si lii nga xamante ne moom nga taxawee pour ñëw assister ñu ko pour ñëw jàppale waa Ngor ñu bañ sañoon nag ñëpp ñëw jàppale ñu parce que wéet nañ si ah wéet nañ si wéet nañ si mais solution comme que mu ngay commencé am rek ñu ngay am yaakaar par rapport ni ñu ko Mouhamed Niass ñaanale ba yàlla def nga ñëw si euh, si si si sa diggante yàq moom xam nga loolu ñoom ñun daal amatuñu lañ see wax yi yëfi métti na ko ñu si jàppale ba jàmm am ñu jël am nañ si yow yaakaar te xam naa ne incha allah rabbi boo doxee li nga war a dox jàmm dina am. képp ku ne man sénégalais laa patriote laa war nga si dugal sa loxo moo gën di yee finn baaxul man nañ fi ñëw en tant que ambassadeur de la paix di dox càmb euh, dox li metti na mais yaakaar naa ne incha allah rabbi saafara dina si am comme le président de la république li may faral di wax rek mooy xaw na si yéex a jóg nag mais comme jóg na si. yaakaar naa ne le président euh, kàddam du dellu ginnaaw lii nga xam ne aussi am na ko tamit lu mu laaj rek mooy suivi la laaj parce que tamit di ñaan tamit sama mbokk yi xam ne tamit c'est des acteurs de développement sama politiciens yi tamit euh, ku si nekk aussi nga sànni si nga dugal si tamit comme ni ko taa waxee si si grain sa de sel nga dugal si nga dugal sa kàddu rafet parce que fitna bu tàkkee xamoo fu mu yem parce que lii yàgg na man bi may ñëw gis naa fi ay ouvrier yu xam ne di liggéey daal les chantiers ñu bëri na ma liggéeyatuñu parce que lu war a loolu mooy li nga xam ne tey moo fi am tey donc jàmm yëpp jàmbar rek moo gën donc comme tey président public démb reçoit na tamit euh, délégation waroon nag sama saga nag mu doon la jeunesse c'est important la jeunesse de Ngor mag baax na mais xale aussi c'est important bu ko parce que xale moo nekk ci front bi ni recevoir leen waxtaan ak ñoom parce que tey bu dara amee tey ñii nga xam ne tey ñoom ñoo nekk si le terrain xam nañ la ñan la moo tax tey euh, ñun suñu bopp tey rek li ñu décidé finalement dem li ñu ko woon def mais yàlla def tey tey la ko yàlla dogal et boo xoolee tamit ñi ngi massawu blessé yi di massawu tamit kii nga xam ne aussi moo génn àdduna bu yàlla defee tamit bu ñu fi jógee danañ dem ba kër kooku euh, massawu ko parce que wala que ñun ñëpp ay sénégalais nañu euh, dinañ ñaanal ko yàlla di wax ni tamit lii nga xam ne tey mu am tamit dañ si dolli taxaw gën a encourager l'autorité pour mu def si ay jéego c'est vrai que dara buy am biir dëkk état dafa war di concerté wu di waxtaan ak nit yi surtout la jeunesse c'est vrai que aussi beaucoup de jeune boo gisee tamit ñu dugg si mooy amuñu lu ñu def mais comme le président de République nga xam ne ñëpp moo ñu yilif mooy suñu kilifa jël na ay décisions fermes surtout si xëy ndaw yi jël na ay mesures que ngor dinañ gis seen bopp boo xoolee ngor amul lu du géej amul lu du dem géej wala dem dóoruwaar parce que man sam bopp am naa fi ay mbokk fi dëkk ñoom seen bopp avant imam sax di ma wax jot nañ ma wax kàddu yu mel nii bu yàgg mais aussi comme ñu tamit dañuy wax ni boo dëkku si benn dëkk rek boo dugalee sax tam gars yi yaakaar ko leneen man ñoo ma fi en tant que politicien dama fi ñëw en tant que patriote en tant que sénégalais pour lan pour massawu yaakaar naa ne tamit nit bu dara jotee sa mbokk yëpp dañu war a jóg bu xeex jotee ñu ñëpp dañu war a jóg am na xeex bi cause noble mais aussi xam ne tamit état tamit mu ngi fi pour tout le monde yaakaar naa ne quand am na jéego bu am comme autorité bi le président bi jël na engagement jël engagement engagement yi bu sobee yàlla xam naa ne Ngor dina si gis seen bopp en tout cas tey di leen remercier di leen sant man de de tout cœur maa ngi ànd ak yéen ak sama délégation ak sama ñii nga xam ne maanaam euh, samay am di jàmm samay xarit yu xam ne tamit xam naa leen euh, tey sax dafa fekkoon te ouvrier yu bëri parce que depuis démbali ouvrier ba liggéeyuñu parce que situation amee rek day yàq lu bëri donc ñun aussi dañu ñëw rek pour dox jàmm jàmm aussi boo koy commencé da koy commencé si borom dëkk bi da nga commencé si imam donc ñi ñu fi ñëw rëccewuñu donc rëppuñu yaakaar naa comme ni nga ko waxee bi ñuy ñëw yaakaar naa borom dëkk bi yëg na ko informé nañ ko man aussi amoon jot dem seet ko mais incha allah rabbi naa dem seet ji ko mais man li may mooy combat bi c'est le combat de la jeunesse donc jeunesse bi aussi tamit man kii nga xam ne tey maanaam moom moo seen représentant tey yàlla def na tey ñu ngi doog a gisee waxtaan nañu am na si yawan yaakaar bu sobee yàlla man à niveau naa si taxaw bu baax man du ma lu ma dugg rek damay dem ba jeex. man am na lu ma ci jaaxal parce que lu toll Sénégal lii leen yàlla may ci xam-xam. li leen yàlla may ci sécurité li leen yàlla may ci ay nit ñu baax li leen yàlla may ci ci ñaan problème am ngor bëgg a mat un mois ba dugg ci deux mois mënta réglé wu ah man di loolu def na ma question te dama yaakaar ne nag problème bii nii lu ko mënta réglé lu mënta réglé un est-ce que man naa réglé dix loolu tamit jàngat la de depuis weeru koor ba léegi nit ñi di doorante ci lan six mille mètres ba bañ wax ne sax ay bakkan nañ ay kilifa di ci wax ay borom xam-xam di ci wax ba léegi solution amut man loolu man jaaxal na ma man man ñes loolu jaaxal na ma de ma yaakaar ne ah ñi ngi wax waaye tamit war nañ cee boole ñaan ndax seytaane day jaar ci diggante parce que man damaa jàpp ne ñaari parti ñëpp ñu baax lañ ñoom ñëpp lu baax la ñuy dox mais seytaane day dugg fu mu xajut man damay wax ne réeroo amul ñàkk waxtaan waxtaan tamit ak ñi nga xam ne ñoom ñoom la mbir mi concerné comme ni ko DG waxee parce que mbir da nga koy teg ci barabam man maa ngi doon xaar maa ngi doon xaar sax excellence président de la xëy wàcc si ngor bi ma xëyee dégg ay mataar dama yaakaar ni moom moo ñëw ndax xëyoon wàcc si nu yaan teg jeunesse bi wax ak ñoom lu ngeen bëgg indaa leen ay bal ñu fulbal mu wax toog ñoom loolu am na lu bëri lu mbon def bi ma këyee dégg mataar yi dama yaakaar ne président sax ñëw pour massa waa ngor ndax fii dëkk cosaan la te baati nañ fi te sekki nañ man xam naa ci dara ndax yàgg na ñoom waaw may ñaan nag li DG wax maa koy confirmé nit ku nekk booy wax da ngay wax ñi nga xam ne ñoom la mbir mi concerné ndax man gisuma ay paa ñi xeex man ay xale laa gis ñi xeex ay xale laa gis ñi xeex ay xale laa gis taal ay pono kon xale yooyu noonu buñ leen négliger parce que euh, réew mu nekk buy dem ci kalam xale yi ñoo koy demal ci kalam benn benn borom xam-xam bind na ne. avenir réew mu nekk mi ngi ci xale yi soo bëggee xam ndax réew mi avenir am baax na xool xoolal ci xale yi su fekkee xale yi ay borom xam-xam lañ fekkee ñu am yar lañ fekk ñu am éducation lañ xamal ne réew mu am na avenir te xale yooyu nag mënuñoo nekk ay nit lu may dañ leen a defar parce que dañ leen di tabax ñu leen tabax mooy leen seen gouvernement moo leen tabax jàngal leen ute leen ay liggéey fexe ñu occupé ba nga xam ne duñ tal yenn yi wax dëgg yàlla man yàgg naa ngor gisuma fi benn société bu liggéey gisuma fi dara loo xam ne mooy dugal wala mooy génne gisuma fi université gisuma fi gisuma fi gisuma fi kon loolu yëpp war nañ koo bàyyi xel ñu xam ne ñoom ci population bi lañ bokk ñu jàppale leen. aussi maa ngi leen di ñaan ñoom tamit ah, ñu delloo si seen xel parce que lu dul jàmm jàmm ko gën te njëriñ loo fekke te islam damay wax mu ne nit ñi bu ñu óoluwantee kenn mën leen représenté waaye keneen di représenté tamit bu mu jàpp ne maanaam mooy mbir mi lépp ku ñu yónni kese nga. islaam ne na su ngeen bëggee jàmm na ngeen def li ma wax islaam lu ma wax islaam ne na al muslimuna ala shurutihim nee na jullit ñi ñu ngi ci condition yi nga xam ne moom lañ d'accord bu ñu fi toogoon tey ne un deux trois lañ d'accord bu ñu génnee bëgg ko def quatre problème bi mooy am kon loolu nañ ko bàyyi xel ñun li ñu war mooy mooy conseil nit ñi réunion bii ñu def tey wala li def nii tey suñ ne woon nañ un deux trois DG génn bëgg ko def quatre cinq problème rek mooy am kon islam nee na al muslimuuna ala shurutihim nit ñi ñi ngi ci condition yi nga xam ne moom lañ d'accord may ñaan euh, contrat yi nga xam ne ñu ngi koy bind di ko wax ak nit ñi ñu koy respecté parce que Sénégal fi ne kenn mënta nax kenn réew mi nag ah li ma fi jaaxal mooy koom kom am na séddoowuñ ko dëgg am na waxuñ ko te loolu yëpp day indi problème dëgg ji nañ ko ñeme di ko wax ci digg bi koom kom bi tamit nañuy fexe tiir gi laal ñëpp ndax ñu bari ñu ñuy wax sonn rek moo tax ñuy wax ñu bari ñu ñuy xeex sonn moo tax ñuy xeex nañu waxante dëgg nit ñi nañ leen jàppale réew mu am problème rek ñaari mbir waral na ko koom-koom bi am na séddowuñ ko wala dëgg am na fooxuñ ko yonent bi sallallahu alayhi nag am na lu nee na képp koo xam ne dundal nga suuf boo xam ne dafa dee neen islam nee na yow yaa ci ëpp yaa ci ëpp doole képp koo xam ne yaa dëkkee suuf suuf boo xam ne kenn moomuñ ko moomu moomu ko defuñ ko ci kayit kenn nga dundal ko di fa romb di ko roose di ko toppatoo nee na yow yaa ëpp droit ci suuf si keneen ku dul yow bu dara sax maa ngi ñaan général Moussa Fall maa ngi ñaan président de la République maa ngi ñaan gouvernement Sénégal lii laay war a suuli ñu arrêté l'accordémocratie parce que fii am na jigéen yoo xam ne dañuy nàmpal am na ay mag am na ay liir am na ay nangam buñ dóoree waxuma la ngoon waaye almari sax dañuy saqataale am na ñu fi amee asma man damaa gis ne yooyu jaru ko damaa gis ne seytaane mën nañu ba pare nañ ñaanlu nañ wax sëriñ ñu xëcc sëriñ si ñaanatuñ de parce que joxuñu joxuñ leen lu ñaanee am ñaanal ma na ñuy wax waaye ñaanal ñaanal joxuñ leen loo ñaanee boo xëyee kañ war a daw dépasse nooy ñaane nañ jox kuris yi sëriñ si ay alal ñu toog seen kuris naan yaa rabbi réew mi dafa laaj ñaan te problème bi du ngoor kese de kàmbure na ngay tàkk depuis weeru koor yi ba léegi yoo fa ngay tàkk feneen ak feneen ak mais ana allahu salaam hafisu dama yaakaar ne kër borom kër gu ne war nga am ku lay kursal war nga am ku kursal réew mi nag bu tollee fii négociation mënu koo fay ñaan mënu koo fay waxtaan mënu koo fay arme baa ngeen mënu koo fay ah man di lii jaaxal na ma solution bi daal mot de passe bi daal DG bi ma jaaxal na ma waaw bi kenn amu ko Sénégal ni mu toll amuñ mot de passe mot de passe bi ko génnee mais mot de fi gannaaw ñoom essayé nañ fii baaxul tey ñoo jël ñaankat yi man damaa yaakaar ne mbir mi ñaan dana ci bokk de parce que am na ñoo xam ne seytaane mën na leen seytaane day ñëw jax-jaxal ay nit nga yaakaar ne mbir mii mbiri fay wax la danañ ci ñaan ñun nag ñu ngi ñaan parce que duñ kaar sax ñu ne ñu ñaan leen parce que Sénégal moo ñor waaye ñaan gu ne dafa am yoon kon pour ma bañ a guddal ah maa ngi wax na ñëpp nañ delloo seen kan ah gis naa ne tamit li ma bëgg a conseil président de la ñu ngi koy wax loo xam ne amut na xoolaat entourage bi ko wër parce que président négligé wut dañ ko doon wax lu amut nañu wax réalité bi nit ñi ñoo ñëw naan ko gonga te gongaa ni de lii la damaa xam yërmaande gi ci moom nit ñi ñoo du ñëw naan ko mbir mi du dara depuis mbir mi commencé mi ngi laajte lan la gars ko non non yaa rey mu jàpp ne yaa rey de rek fekk am na lu ca ne bi demee ba dernier moment nag ba dégg naa ne gars yi bañ toogee moom sax ba léegi ñu ngi koy nëpp ay réalité yoo xam ne mi ngi ci biir moo tax kilifa dañ koy jàppale kilifa mënoo xam lépp sa yéene nga mën a am aussi maa ngi gërëm première dame Marième Faye Sall parce que rencontrement bii ngeen gis bërki démb def na ci ay jéego yu mag dafa social Habib comme yow dafa social lii ba commencé ba léegi mi ngi ciy dox mi ngi ciy wax naan nañ def jàmm nañ wax jàmm aussi maa ngi masawu policiers yi nga xam ne gaañu nañ ci blessé yi du du waa Ngor kese de même même gendarme yi am na ñoo xam ne am nañu ay blessé te ñooñu yéenewuñ gaañ peuple bi ay ordre rek lañ leen jox ñu génn saan ay sénégalais lañ jàmm rek lañ bëgg ñi gaañ ay doomi jàmbur ñi gaañ ay doomi jàmbur fitna baaxut yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na fitna mi ngi nelaw yàlla mi ngi rëbb képp koo xam ne mi ngi koy yee gendarme yoo xam ne ndeysaan ar réew mi leen tax a jóg fii jaayuñ fi yàmba reyuñ fi nit defuñ fi luñ géeruñ waa lii lépp li ko war a lan la force bi yëpp ñu génne li ko war a lan la man jaaxal na ma six mille mètres carré jar na lii yëpp mbir mi seytaane te place bi am na lu ma ci dégg place bi dégg naa laal ko yombut de hasard place bi dégg naa ne ay bagages am yombut de dégg naa ko de moo tax man li ma war mooy conseil rek nañ téye nañ dal man suma ma sañoon bañ waxee ñu teg lépp ci suuf parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ne ruwaydan ruwaydan angale ne sulolu sulo si nànk-nànk suñ waxee mbir yi da naan teg ba mbir mi dal boo dee teg ba mbir yi dal rek xel yi ñëwaat arab yi dañuy wax mu ne nit bu xuloo ees bul dem di ko yeddi ci sens yi bàyyi ko 3 jours 4 jours ba mu dal ndax boo ñëwee ay saag nga fay jëlee parce que mi ngi mer nit bu meree doo ko yeddi ci sens koy bàyyi ba mu dal kon mbir mi bi mu yëngatoo mënoon nañ ne teg ba mbir yi dal te tamit alquran li mu wax nañ koy bàyyi xel alquran nee na wa shaawiru fil bi yow la yàlla yow yàlla yow la yàlla jox yonantu gi yaay chef waaye damaa bëgg décision booy jël nga waxtaan ak saxaaba yi bañ d'accord wa shaawiru fil amri te réew mi nag ah kenn xamul fi mu jëm de ku ñëw naan la fii la jëm ah man de xaw ma fi mu jëm wax de yàlla li ma gis nii man xaw ma fi réew mi jëm de borom xam-xam yi nag nee nañ àdduna ñetti kese la démb dootu waat loo ci defoon lu baax ñeel na la waaye lépp loo ci defoon lu ñaaw tamit ñeel na la yàlla na la ko fay tey démb ak tey tey lu mu neex neex lu mu neex neex dana jeex kenn mënta wax ne jour bi du jeex kan moo ko mën a wax dama ne àdduna ñetti fan la démb weesu na loo ci defoon lu baax marqué nañ ko dana ñëw koo lebaloon lu baax dana la ko fay waaye koo lebaloon safaan bi dana la ko fay kon nañ bàyyi xel li ñuy def ak tey ji nekk nii te tey lu mu neex neex dana jeex 24 heures kese la <laughs> waaw 24 heures kese la ak suba te suba kenn mun laa wax lii ñëw parce que yàlla mooy laa ya'lamul ghayba illa Allah yàlla nee na suba demee lii ñëw ku la wax ne xam na ko day wax la ko neex ñaata nit ñoo garanti garanti bi ñëw échec moo tax nit ñi nañ delloo seen xel lu dul jeex amut nañu jëlale di jéggale di baalante te ñaan yàlla mu ngi rafet rek finir mu solo nañ ñaan mu ngi rafet rek. nañ yàlla mu mujj rafet rek te gëm suñ bopp Sénégal léppam fi Sénégal koom-koom boo mu fi kon nag ñun yàlla ñu yàlla dimbale ah ñu xam dëgg-dëgg koom bi nekk ci ñun ñu xam dëgg-dëgg Sénégal riche bi mu riche ñu xam li ñu am ñu xam teraanga ji nga xam ne moom la yàlla may ñu bañ koo fayee safara kenn du ko fayee safara buñ tiital nit ñi buñ tiital nit ñi yaa allahu yaa rabbi ñu ngi lay ñaan ci barke jotaay bi yaa wax ne trois personnes fu ñu dajee rek am na ci koo xam ne bu ñaanee nga nangu te yaakaaruñ suñ bopp waaye ñu ngi lay yaakaar yow yàlla am nañ problème ci ngor mooy six mille mètres maa bay na mu ay din ma aari din yaa allahu yaa rabbi li nga xam ne moo ci problème yàlla na ko génnee sànni ko fole bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ah ñi gaañu ñu ngi leen di jaale di leen masawu di ñaan yàlla mu xarel na aljanna maa ngi ñaan yàlla yàlla bu ñu dégg di tàkk-tàkk ci ngor yàlla yàlla may ay lycée may ñu ay gendarmerie suuf dèjà suuf si ñaakul lépp xaj na fi ñaata suuf si góor si xaajagut lu ne xaj na fi comme nag man problème bi mu am dëgg dëgg dëgg mooy lii lan suuf si jeexagut suuf si jeexagut téere yi yaa ngi nii bëri ba dee te nag am na ñoo xam ne ñoo yore doole ji kon ya allahu ya rabbi comme li nga wax rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko yàlla waxoon ba mu ñëwee dugg màkk gañe leen toog seen kaw bopp yëpp ñu ne ko waaw yonent bi mo yonent bi ne waaw yéen a ma génne woon de ñu ne ko waaw mu ne léegi lu ngeen yaakaar mu lay def yoon ñu ne ko yow nit ku baax nga dooy mbokk mu baax nga mu ne baal naa leen yéen ñëpp yàlla islam ne al afu inda al maqdara boo jekkoo baaleel boo jekkoo sangu day baale boo jekkoo baaleel sereeti mbaam ak oto buñ defee problème oto bee tooñ kii dafa am fere kii amul fere nañ jéggale nañ jëlale nañ dawal yërmaane yàlla nee na yërëm leen ñu ne ci suuf ki ne ci kaw yërëm leen oma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin yàllaa ko wax nee na yonent yónniwu ma la yow yonentu def ma la président def ma la chef lu may nga nekk yërmaane ñeel aalam bi waxut julli ñi de aalam bi même xarak ba yërëm leen ya allah ya rabbi ñu ngi xaar di ñaan suñ ngor gi yàlla mu yàlla ñu fi yàlla may ay député yàlla ñu fi yàlla may ay ministre président sax mën na fee génn lu tee jàng nañ yàlla ñu ko yàlla defal bi rasulillah xale yàlla leen yàlla koomal yàlla ñu yàlla richel am nañ géej te riche la géej lépp a ngi ci jamaa ngi ci oron ci jënañ ci lépp a ngi ci yàlla yaa rabbi yàlla ñu yàlla may jàmm ju xam ne jàmm la ci Ngor ci Dakar ñu ngi ñaanal suñu gouvernement yàlla dimbali leen may leen tawfiix ah yàlla yàlla yàlla def Sénégal mu ne Sénégal goo xam ne dañu nekk ay frères bëggante di dajee di ree di waxtaan yàlla yaa rabbi yàlla ñu def ñoo xam ne kenn du mere kenn ah comme aaya bi may jàng wa kuntum ala shafa xufrati min annaari fa anqadakum minha yàlla am na suru boo xam ne bu ko neexee li ne ci xol yi ci mbañeel mu dindi ko sànni fëre ñu ngi koy yaakaar ya allah ya bi yàlla ñu ko yàlla defal di jaay rasulilahi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal suñu DG bi Habib Niang yàlla may ko ndam may ko tawfiq parce que occasion bi moom la bu oote wutoon duñ mën a wax lii waaye nag ñëwam ci ngor ñu ngi lay wax ne welcome ñu ngi ñaan yàlla yàlla dimbale la yàlla may la ndam lii mooy conseil Habib li nga def mooy conseil ñu bëri ñu ngi jege président li nga def nii defuñ ko pourtant ñoom la gën a war de waaye maa xam lu bëri xam nga xam noppi xam wax dafa yaakaar ne moo mën xam noppi déedéet ñu bëri am na lu ñu xam noppi xam noppi xam wax dafa yaakaar ne moo xam man no xam noppi xam noppi li mu xam bari na waaye dafa noppi rek fii ci ngor bu ma leen waxee teraanga yi mu fii def bëggul ñu ko de teraanga yi muy def fii social man ma xam ci dara bëri na foo xam ne président dafa waroon teg tànk mënu faa dem mu dem fa bëri na lu mu waroon def yëgu ko mu def ko bëri na ñoo xam ne li leen tax li leen tax a noppi moom nii la li tax ñi calmé wu moom nii la te du ko waxee du ko jëfee mais nit kilifa boo koy dimbali nii ngay def waaye lu ñu wax rek xamoo ko waaye lu ñu waxut daal xamoo ko nit day xam lu ñu ko waxut kilifa bu nomee nga ne ci pegam da koy defaral di ko wax dëgg ñu bëri ñoo jumloo kilifa yi kilifa boo ko waxee lu dëgg rek jumloo ko kilifa bu la yónnee bu ne un waxal un bu ne deux waxal deux bu ne trois mu xam fi muy teg